lii moom c'est normal quoi parce que ñu ñëpp bëggoon nañ lii parce que c'est normal ñu defar ko xam nga gars yi bëggoon nañ lii quoi parce que loo xam ne lañ ko war a defar yàgg na quoi mais aussi bon soo gisee lii lépp comprendre nga euh, bon am na nag lu ñu waxante woon ak ñoom comprendre nga mais woon nañu ay marché xam nga proposé nañu ay affaire mais aussi xam nga ni fa nii li ñu waxoon ne moom lay demee dëgg-dëgg demeewul noonu quoi comprendre nga te fii nii ba léegi mënuñ la wax lan la exact lan lañ fi def ñoom nee nañ marché lañ koy defaat bon loolu lañ mën a jàpp quoi ok mais ba léegi mënuñ la wax exact exact lii la quoi. maanaam jaam day nangu dogal comme que yàlla dogal na maanaam ñu jële fi gars yi ñu jële ñu fi ah maanaam yàlla lim denc maanaam du lii rek la ñu dencal peut-être li nekk suñ kanam moo dàq lii nii donc kon dañ koy muñ. maîtriser wu encore maanaam jéem a xool it yeneen façon yu ñuy defee pour man cee génn quoi maanaam loolu daal ci lañ nekk instant bi nii nii nii mais du ñu xeex du ñu xuloo du ñu histoire du ñu def lenn nag loo xamante ne bii maanaam yoon da koy tere voilà bu ñu xëyee nag dinañ ñëw maanaam ku mën a gàddu sa quelque bagage gàddu sa quelque bagage jéem a xool say client jaay leen boo ku ko mënut it xool na ni nga mën a toje sa boppu jinax rek nga jéemee ko defee noonu quoi waaw mais dogal la boo xam ne nii dal na suñu kaw dañ koy nangu métti na nag d'accord parce que fi la ñu doon jëlee li nga xam ne moom la ñu jox suñu njaboot waaw kaw fi gis lu mu ndaw ndaw instant bi nii peut-être ay quelques personnes waa ok ay ay ay ay ay ay personnes yu bari ñoo ne ci ginnaawam te bu xëyee li mu leen di dundalee ginnaaw yàlla fi la ko doon taxane donc bu demee nii dina metti waaye nag jaam moom toujours bu yàlla ñëwee ak i dogalam day muñ parce que dee moo gën a metti moo gën a moo gën a dur te ku mu heure bu ñu dalee te chaque jour mu dal ñu te bu ñu dalee dañuy muñ dem jaamu xama continué waat suñu action. comme que fi mu toll nii nañu marché bi ba jox ñu fële euh, champ de course ñu bëri nag déplacé wu dem foofu pour euh, defar seen place yi parce que xam naa tamit ça va prendre du temps parce que defar place yi moom dina jël weer wala ñaari weer. waaw man li ce qui m'étonne tamit maa ngi doon déglu tey ci suba gi ñu ne am na benn association boo xam ne ñoom ñooy protéger patrimoine culturel yi te dañu waxoon ne euh, bâtiment bi kenn du ko daaneel. dañ koy réfectionné te dégg naa ne fu mu toll nii ñoom dañ ko war a daaneel ba fu mu toll nii euh, d'ici euh, une heure de temps ou deux heures temps war nañu euh, lu lu wër Sandaga yëpp hmm, war war nañ ko baare hmm, pour mën a def seen liggéey léegi je ma demande association bi ñoom fan la ñu nekk ndax ñoom ñu ngi suivre actualité bi pour mun a taxawu loolu loolu daal moom ci jaaxal question bu mooy posé la. defar la te defar boo gis moom dana dana day jëkke metti seulement ñun liñ ci taxawaay yuñ ci amoon rek moom mooy comme ñun li ñuy defaral tamit euh, nu jege yëf yi euh, ba mën ko ànd ak ñoom saytu ko ba mën ko amee ni mu ni mu gënee dëgg na nag euh, bëri na ay manquement yu ci am yoo xam ne vraiment xëy na yéen gis ngeen yéen yi mais yéen ñun ñoo koy dundal suñu bopp xëy na du neex a wax te jàpp naa jaratul wax léegi lépp solo rek mooy comme ñu ngi ci liggéey bi ah nañ bokk ànd ñun ñëpp rek saytu ko pour euh, ni ko Sénégalais yi bëggee tamit mais surtout tamit euh, fi commerce toll ñu mën ko defee loonu nga xam ne vraiment ñëpp dañ ciy gis seen njëriñ. c'est normal xam nga manqué na manqué na sax client yi ah, parce que yi fi ne nekk de fi nekk ni déjà rek da ngay magasin di laajte fan lay fan lay jëm xam nga yooyu moom mënul ñàkk ci njëlbeen gi rek la. mais quand même euh, ñu ngi ciy liggéey ndax tamit xam nga mbir nag moom su ñëwee ci yow bees. foog mu am lu mu la lu mu lu mu lu mu def seew mais ku ne xam na ne Sandaga gi moom bon muy commerçant bi muy ñi nga xam ne tamit riverain yi la muy ñi nga xam ne tamit ñoom ñoo ñëw di jënd yëpp ah ku ne dafa am lu la fi lu la fi lu la fi lu la fi war mais ku ne tamit da nga fi am loo xam ne soo ko amatul rek daf lay manqué loolu moom Sénégal yëpp a ko ñàkk mais ñu xam rek ne tamit euh, dañuy defar ah te jàpp nañ ne euh, incha allah suñu liggéeyee ba pare. li ñuy proposé waa Sénégal yi moom mooy euh, gën li fi nekkoon loolu moom waa ATS ñu ngi ciy liggéey état bi mu ngi ciy liggéey ah Sénégal yëpp tamit ñu ngi ciy liggéey parce que parce que war na xam ne projet problème mu bi mu taxawee ba dëgër Sénégal yi yëpp a ci ko joxoon jox ite dox ci li ñu ci war a jox muy presse bi muy kilifa yi diine yi muy kilifay aada yi ñëpp def nañ ci li ñu war a def kon jàpp naa ne li ñëwaat su dikkee danañ xam ne vraiment lii lañ bëggoon lii leen bëggoon Sénégal mel nii leen bëggoon commerce mel yàlla na ko yàlla sottalee noonu nag te loolu li tax mu mën a nekk tamit mooy euh, li manqué woon ci communication ñu daal koy mottali ci li des ndax loolu tamit lu am solo la bu ñu ko fàtte que bëri na euh, ci projet bi lu ci rëq ak ay rëq-rëq yoo xam ne su waxtaan amoon daje yu sincère amoon doonul woon amee noonu kon jàpp naa li ci des rek nañ ci continuer waxtaan ba li nga xamante ni moom la Sénégal yi soxla ñu mën leen ko jox mooy Sandaga bu bees Sandaga boo xam ne day méngoo ak fi jamono toll loolu rek moom mooy xeexoo ATS te jàpp tamit loolu moom mooy liggéeyu état ñun li ñu doon bañ rek mooy vraiment ñi fi nekk nii ah, ñu déguerpir leen ci déguerpissement boo xam ne ni tamit préparé wuñu trop projet bi loolu rek mu andi woon wax ji ah, amul woon yenn détails yoo xam ne ni mu ngi woon ci woon dañuy wax sax ne waa Sandaga dañu fi bañ a jógee dañu leen defar ñu fi bañ a jógee et tout mais loolu mënul nekk xam nga mënuloo toog gis sa marché mu mel ni mu mel nga dem ci njiitu réew wax ak moom ba ne ko lii laa bëgg mu ànd ci yow di ko liggéey nga wëlbate ko ne bëgguma fi jóge loolu doo ko doon sax loo xam ne cëru nit ku baax la li ci amoon rek moom mooy manque de communication amoon na bëri na lu waa Sànni gi waroon xam-xamuñu ko bëri na tamit nu ñu gisee projet bi tamit te ñemewuñu loolu tamit lool rek mu andi woon xëy na détails yu bëree bëri mais ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay li nu war rek tey jii mooy ñu ànd bokk ndey bokk baay ñaanal leen tamit comme ñoo ñoom ñoo yore liggéey bi ah nu ñaanal leen ah liñ ci mébét mi ngi ci am sa borom defal leen ci jàmm ak xéewal ak sutura ba ñu am ci ndam ndax seen ndam mooy ndamu Sénégal yëpp mooy ndamu commerce tey dafa ndax tey bu échecee tey ñun ñu fi war a ñëw ñooy am problème ñi fi war a ñëw tamit di jënd si dañuy continuer di am problème loolu yëpp yàlla bu mu am yàlla na yàlla def jàmm rek ba projet bi ñu ko commencé nii coow amu ci yàlla na yàlla di def tamit bu nu fiy dellu si rek lépp ànd ak mbégte ñun loolu rek la ñuy ñaan yàlla na ko yàlla def